asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur yu Wilaya TV dal leen ak jàmm ci seen xibaaru bés bi nes tuuti ñu faram-fàcc ko. dalee ko guy mbind ca kër Serigne Cheikh Marème Mbacké wilaya section Louga nekk fa di liggéey liggéey bu am solo reportage am di Moustapha Lo. alarba yam ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru safar te ji seen télévision wilaya tv doxantu ji woon ci euh, guy mbind jox Serigne Cheikh Mariama Mbacke ci waañ bi nga xam ne euh, taalibé Serigne Cheikh Mariama ñu ngi fi ànd ak waa wilaya euh, ngir amal fa liggéey boo am solo jëmee ko ci màggalu 18 safar Serigne Mbacke xulle dikk ak ñun ci nekkuwaayu liggéey boobu le fii nag ñu nekk di waañu Serigne Cheikh Mariama ginnaaw ñu koy ñaanal nag suñu borom defal ko ak tawféex di ko ñaanal moo ko njabootam yëpp di ñaanal suñu Xaadim Mbàkke Mouhamed suñu wasila eh, di ziar mbokktaal bi yëpp di leen ziar di leen xamal ni comme ni ñu ko daan defee rek ñu ngi fii ci waañu suñu Cheikh Mariama ci 18 safar di ko taxaw ni ñu ko daan taxawoo lu mat ay at ñu siy nekk waaye tamit muy waañu woo xamante ni si wax dëgg dañ ko teg suñ loxo waaye ak ak kóolute te amuñ benn jafe-jafe boo xamante ni si daal moom eh, dañ ko fi dund. borom waañ wi doyloo nañu lépp loo xam ne si daal war na doon ak ñun rek mu ñu koy defal. waañ wi moom waa wilaay ñoo fi nekk ànd ko taalib yi nga xam ne si ñoo tënku ci kër gi ak soppe yi ñuy ñoo xam ne dañ si nag wax dëgg yàlla ñu neex a nekkal lañ depuis ñu fiy nekk ba léegi e, yaatal nañ ñu buñ ñëwee liggéey bi mënoo xàmmee e, wilaay ak taalib sëñ seex ak keneen waaw xanaa boo ko ràññeewul ci tën yi daal. doo ko ràññee moom ci jëf yeeg doxin yi waaw. am na waaw waañ moom bari na ñu ñun waa wilaaya ñun ñu maanaam responsable moom ci loxoy wilaaya la nekk waaye nag seq nañ koog ñu bari waaw comme ni ma la ko waxee rek muy taalibe yi ak sopp yi nga xam ne si yàgg nañ fee màggalee eh, te dara yëkkati woon lu ñëw jàppal jàpp ci bis bi liggéeyal seenub sëriñ sàkku ngërëmu sëriñ Tuubaa ginnaaw euh, leeral yu am solo yi Serigne Mbacke Khoule dellu siwaat na ci euh, contexte bi nga xam ne ci la ñu màggalee muy euh, mbas mi nga xam ne mu ngi lëmbee àdduna bi Serigne Mbacke Khoule di ñu xamal ne daayira bi mi ngi jëfee ndigalu kër docteur yi ci takk masque yi ak respecter distanciation sociale yi. jamono ji fii mu toll moom muy jamonoy corona bi waaye loolu lépp nag moom ñuy bàyyi xel ndigalu sëriñ bi muy sëñ Mountakha Bassirou. te ñu koy ñaanal nag mu yàgg fi loolu yàgg a jiite taalibe yi ñu ñaanal ñi topp ci ginnaawam yëpp suñu borom yi dafa leen ak akuk dégg waaw ba tax bi mu joxee ndigal ndigal li moom mooy masque yi ak gants yi gel yi yooyu yëpp fàgg yu nag ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ak mboolooy yi dajaloo yi tamit ñu ngi koy bàyyi xel moo waral sax dañuy def ay dañuy xaw a tas mbooloo yi ñuy bañ ñuy dajaloo benn place waaw donte mënta ñàkk it waaye dañ dañ leen di def ay groupe groupe yoo xamante ni si yenn dànk looyu du am daal kàddu yu mujj yi nag moom mooy di sant di sant waa communication seen liggéey ñu koy rafetlu bu baax a baax dee ñaanal tamit ñoom li ñu ciy séentu rek muy ñun li ñuy séentu si suñ ci liggéey bi rek ñu bokk rek suñ borom dafa ñu tawféex ñun ñëpp ñu daje ceeg tawféex Serigne Touba waaw di ñaanal waa euh, section bi section bi yëpp euh, di ñaanal bépp membre wilaya rek waaw bàyyi wuñ kenn daal. ginnaaw kàddu yi Serigne Mbacke Khoule Serigne Babacar Dione di jëwrinu waa kër eh, Cheikh Marema Mbacke di rek dëggal li nga xam ne moom la Serigne Mbacke wax eh, ak itam ànd bu rafet bi nga xam ne moom la ñu ànd waaye itam liggéey bu am solo bi ñu eh, liggéey wax itam ci li nga xam ne moom moo di njàng bi ñuy jàng ci daayira boobu nga xam ne Serigne bi indil na leen ko fii te ñu nekk ay royuwaay ci wàllu organisation. depuis ay at ñun ak waa waa wilaya yi ñoo ko ñoo ñoo ñoom daal ñoo ci lu bëri bëri wax dëgg man li ma gën a yéem si ñoom mooy Pastef bi ak discipline bi aussi waaw maanaam loolu sax gën naa bokk defe naa lu tax sëñ bi indi leen fi parce que ñoo fi newoon di liggéey bëggoon nañ waaye xam naa dañoo xamul woon yoon bi parce que sëñ bi bi may wax sax loola ma dana ma danaa leen fi indi ngir ngeen jàng ci ñoom waaw ke bi sax mu laaj ma ne ma ne ma ko ma gën a gis ci ñoom nag mooy organisation xam nga organisation boo ko jàngee ci ñi organiser maanaam ça veut tout dire daal waaye wax dëgg yàlla bu dul seen disponibilité ak seen eh, yar bi daal éducation bi surtout waaw xanaa di leen sant di leen gërëm di sant euh, mbokk taalibe yëpp surtout yéen waa wilaya ne ma koy wax man sax wilaya wilaya kii laa bokk wilaya Louga loolu laay faral di wax ñi xew naa ma fekk waaye ba baxa sol comme ñoom waaw sant nañ leen daal bu baax gërëm nañ leen ci jàppale bi ak taxaw bi ak dëgg yàlla di ñaanal sëñ bi dolli tawféex ak tey seen moo lañu ñu ñëpp defal ngërëm sëñ Tuubaa wéyal nañ itam dem ba tokkoor ba fekk fa wilaya yi ñuy liggéey liggéey bu am solo jëm ci séddaleem ndox ci mbooleem fii waa ñi nekk ci biiru Touba ak ñi nga xam ni yitte woon nañ ko reportage Alioune Badara Diop. gannaaw bi ñu agsee ci tokkooru Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma bi la fekk nañ oto ndox yi gaare ñuy def liggéey bu am solo ci bisu màggal gi ak ci waajtaay yi waaye tamit danañ gunge màggal gi ñu fekk fi jëwriñ yi nga xam ne moo yor liggéey bi di Serigne Thierno Sarr dëkk nañu ko suñu micro mu fàttali ñu yan taxawaay la commission bi nga xam ne moo yor ndox mi di def ci màggal gi. waañ yi nga xamante ni bii ñooy waañu wilaay yi ñoo leen tax a jóg eh, waañ yi nga xamante ni bii gone wilaay yi fa nekk di togg togg yi nga xam ne moo jëm si si kër Sëriñ Tuubaa yi yooyu mooy moo tax oto yi jóg gannaaw bu ñu duyee waañi ba noppi nag ci la nekk di dimbali mbokki taalibe yi nga xam te ne ñu si dëkk bi ñàkk ndox ba keroog ñuy jot ndigalul barab yooyu jeex na su waaji jeexee itam ñu arrêté duyaat waañi ba noppi nekkaat ci liggéey boobu loolu mooy liggéeyu oto yi ñu dégg Serigne Thierno Sarr fàttewul benn yoon jottaliwaale ay kàddoom ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ngir ñu gën a yokkaat bu baax taxawaay bi ak mesures yi nga xam ne moom lañu war a jël ngir ndox mi di man di jàppandi ci waxtu win ko soxlaa bari na li si ëpp da mooy xëy na ñi yitte woon ndox mi bari te te oto yi bariwut loolu mooy mooy jafe-jafe bi si njëkk ñaareel bi itam mooy gasoil bi nga xamante ne bi dañ koy jox oto yi par benn benn loolu bokk na si li li gën a tardeel liggéey bi mooy jox oto 40 litres gasoil mu jëlee ko station ba sa Mbàkke doo ko dem liggéey mun sañoon daal te am leen bëgg mooy saa bu oto yi dee ñëw dañ leen di jox seen gasoil lépp bu ko defee ñu toog fii mën a liggéey ba màggal gi jeex incha allah waaw oto yi moom lu ñu ko yokk rek doyut waaw lu ñu ko yokk rek doyut ndax damaa seetlu na ne maanaam tokkoor bi fii ñuy joxe ndox li fi teew ci ay nit yaakaar naa ne sax teewut yeneen barab yi nga xam ne moom lañ autorisé pour ñuy maye ndox waaw ginnaaw ñun dañ ñoo wax ne ne barab sàngam barab sàngam rek ngeen may ndox waaye gis nañ ne bu ñu duyee ba barab yooyu ba pare oto yi di gaare di xaar barab yooyu jeex amul amul amul moo tax ñuy wër di may ndox ba nit ñi xam ko ba min ko fii boo fi ñëwoon suba teel tey li fi ñëw si ni dana ëpp téeméer nit yoo xam te ne dañuy ñaan si ndox ma gis na nag buñ ko yokkoon gënoon koo yokk ba xam te ne bii dana mën a génnal mat juróomi oto yoo xam ne ñoo féetewoo waañi ñi si des di maye ndox ci mbokki taalibe yi dana tax maye bi gën a gaaw moom Thierno Sarr itam jeexale na ay kàddoom ñaan yu am solo ak cant ak i ngërëm. xanaa sant rek sant leen yéen ñëpp ci farlu gi ngeen farlu ba mën a ñëw jël si liggéey bi waaye di ñaan itam coono yi ñu ciy toggoo ndax ñun ñi nga xam ne dañoo bàyyi suñuy gan bàyyi suñuy kër coono ngir liggéeyal si Serigne Touba coono yi ñu ciy toggoo yëpp rek suñu borom nangu ko te fayal ñu ko si barke Serigne Touba. mbokk yi loolu yi moo gënoon a fës ci xibaar yi ñu ngi leen di jox digg daje ci yeneen i jotaay ñu ngi sant mboolem ñi jàpp ci réalisation bi ba xibaar yi mën a yemb asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu